jamono ji ñu ngi fii nga xamante ni moo di si rond-point bi xamante ni euh, moo sépare diggante Touba ak Mbacké fii nag xam ngeen ni way takk der yi ñoo ngi nii di jàkkar ay way ak booy waa gis ngeen fee ñuul kukku fii mi ngi ñuul kukku way takk der yi ñoo ngi euh, sànni ay lakk ma seen booy aussi ay xeet leen dellu attention way takk der yaa nga takk der ñu ngi daw di booy yi way takk der yi ñoo ngi daw di attaqué booy booy xam nga nag lakk ma seen moom suñ ko sànnee dafay daal di saf sàpp voilà ñu jéem dama si beneen angle ngir yeneen i image yéen ñi bàyyi xel si xibaaru réew mi ñu ngi fii ci ak si rond point bi nga xamante ni moo séparé diggante Touba ak Mbacké nga xamante ni dem ba la boy di nek di jàkkaarloo ak ñi dia, di way ah, tak der yi ci manifestation yi nga xamante ni dëkk yu bari jamono ji ñu ngi amal lah, la il faut ñu xaw del gannaaw nag moom lakk ma sap sap. sàpp lakk ma walé wale boy ak attaque kan kan ya auto police bi ci benen côté bi ci benen côté boy ñi ngi attaqué auto auto police wala mu ngout arrière xani wala xani wala image yalla gis nga ko non ci benen walé gi boy ñi ngi attaque auto police bi boy yang sañ xéer auto police bi boy yang sani xeer auto police bi auto ba dawno auto ba dawno auto ba dawno wala auto ba dawno gi ngeen boy yang du yuxo boy yang du yuxo boy yang du yuxo xani wala image waye nak lakum seni mo xawa doy war tuuti lakum seni mo xawa doy war weex na xàtt wala gi ngeen boyangok boyangok di sana ay xeer auto police ba da di avancer auto police da di sana boyangok di sànni xeer wala yeen ngi jakarok boy wala boy ñi ngi ni boyang yaa ngi sànni xeer booy yaa xeer ngi sànni xeer baitak takk yang yaa ngi commencé attaqué way takk de yaa ngi boy daw boy daw boy daw boy daw nan gars yi tiir nan boy daw boy daw boy daw boy daw nan voilà ma boy daw boy daw nan attention gars yaa ngi sànni laa commencé ni gars yaa ngi tiir laa commencé ni mi ngi gën a takkarnaase laa commencé ni ñu ngi gën a takkarnaase voilà dégg ngeen noonu voilà affaire bi gën takk commencé seen ngeen noonu way takk der yi ñu ngi euh, lancé lacrymogène yi booy daal dinañ dellu ginnaaw tasaaroo duggaat si mbedd yi waaye takk der di euh, gën a defarwaat aussi booy way takk der ñu gën a defarwaat fépp booy taal ñu jëm kaa fay voilà loolu mooy situation bi nga xamante ni moo am fii nii voilà mbokk yi xewaaru réew ba tey dañu wéy di leen toppal situation bu compliqué bi nga xamante ni moo nekk fële si ak si rond Touba Mbacké nga xamante ni euh, exactement jam ñu waxee yéen fi la way takk ter yi taxaw pour faire face jàmmaaroo ak nga xamante ni ñoo di boy yi euh, manifester soo xoolee fii nag euh, saxaar si moom muy kukku ndax boy ay pneu lan daal di eh, ak ay table ak rek lepp li nga xamanteni mo nekkon fi ni ci si rond point bi fi ci eh, diggante Touba ak Mbacké amna nak ñu si bari sax ño xamanteni ñi ngi nekk ci wetu wetu garage bes bi ñu bari si boy manifester fofu lañu taxaw jamono ji ci wetu garage bes bi fofu lañu taxaw wala jamono ji nak defa way takte dañ leen di ba boy delo ginaaw so xolé jamaro yi yàgg na depuis 16 heures si ngoon boobu léegi waaye takk der ñi ngi euh, jamaro ak euh, ñi nga xamanteni ni ñoo di euh, booy mu nek ay ay xex bu metti metti bo xamanteni ni am des fois sax boy yi xam ngeen ni dañuy tak dañuy séparo dugg ci biir bedd yi lool moy li nga xamanteni mom moom dañu seetlu fii wala voilà mbokk rek xam ngeen ni yene a ngi ba tey di and ak ñun fi nga xamanteni moo di jàmmaarloo yam ci diggante Touba ak Mbacke booy nag day dugg ci ay roq isaan ñu ci bi di ko eh, eh. jamor ak way eh, takk day attention booy yaa ngi sànni xeer gars yi sànni ay lacrymogène mbooy yaa ngi sànni xeer mbooy yaa ngi sànni xeer way takk day di taxaw di leen delloo ay lacrymogène voilà booy ñëngoog taxaw en face leen def jàkkaaroo en face leen def jàkkaaroo dox diggante way takk der yi ak ñi nga xamante ni ñoo di booy yi nga xamante ni ñoom it ngi sànni xeer la boyan yaa ngi taxaw daal di engagé eh, sànni ay xeer way takteer aussi ñoom it ñu ngi taxaw yor seen i barrage des fois ñu sànni ay xeer delloo leen ko des ya. fois tamit ñu sànni ay ya. eh, granate eh, lacrymogène loolu mooy loolu ya? mooy li nga xamante mooy situation bu bi nga ci ak si rond point Touba Mbacké xeex bi nag dafay dem ba si yenn ndax dem nañ booy ñi ci biir roq bi di jàkkaaroo ak way takk der yi daal mooy situation bu garaaw bi nga xamante ni moo fi daal di am ma situation xeex meet na de xeex meet na de xeex meet na diggante way takk der yi voilà takk der dafa am ay gaañu gaañu takk der am nay gaañu gaañu xeex bi meet na jamono ji si ruq-ruqaan yi fi la ci diwaanu Touba ak booy yi nga xamante ni ñoo daal di engagé wu booy attention booy ñu ngi attaqué way takk der ñu ngi booy ñu ngi xeer way takk der yi dellu ginnaaw booy ñi ngi sax aw oh, attention xeer yi laa ilaha illallah en tout cas situation bi compliqué na situation bi tendre na voilà attention non ñu arrière ñu arrière xeer yaa ngi ñëw xeer yaa ñëw il faut on recule un peu xeer yi mi ngi ñëw bu baax a baax xeer mi ngi ñëw situation bi compliqué situation bi compliqué na xeer yi mi ngi ñëw il faut ñu gën a gi ginnaaw tuuti en tout yi am fii moom nekk na lu yéeme voilà benn lakk mo seen na ko mu dem ndax booy dañu dañuy repousser déet voilà lacrymogène yi sànniwaat nañ ba nee na une autre lacrymogène yi jaajëf ñun jamono ji ñu ngi fii nga xamante ni mu ci rond ak si Touba Mbacké fi nga xamante ni nag si euh, bisu euh, àjjuma nga xamante moo di booy ak euh, ak way takk der nekk daal ay jamono yu métti booy ay xeer dañuy taal li nga xamante moo day pën ak bépp taabal bu nekkoon yoon yi ñoom it ah, ñi nga xamante ni ñoo di ah, ñoo di bay takk der yi ñoom tamit daal di rek ay lakk ma seen ko sànni mu nekk xeex métti métti boo xamante ni ah, moo am fii la ak si rond point Touba Mbacké

taxaw ak seeni autodate armée soo xoolee si ginnaaw way takk de yaa ngi seen saxaas saxaasaa ngi ñuul kuku moo rek booy moom fépp lan taal jamono ji soo xoolee aussi si yenn ruq-ruqaan tamit booy des fois ñu dugg fa jéem a jàkkaaroog ak euh, way takk der yi lim xeexu nag yaatu na ndax nekkut dafa yem fii si rond point yi mais soo avancé daal di jëm euh, soo xoolee jëm xeex bi soo avancé jëm boori garage beesu tamit boo sax sooy moo ay nit ndax foofu la booy daat nekk. waaw loolu moom euh, maam Fallou mhm. lu doy waar voilà euh, donc doy na waar trop situation bi compliqué na lool mu mel ni nag euh, force de l'ordre yi ngi taxaw booy nag aussi itam ñu ngi gën a avancé ci biir mu mel ni nag dana wëri li nga xam ne moom moo di rompé garage Dakar bi wutali fële ca côté tali jëm alom ga mu mel ni nag foofu lañ gën a yéegee situation bi foofu la gën a tare mais nag ba léegi policiers ñu ngi taxaw ci rond bi li ko waral nag xam naa dañuy bañ a bàyyi booy yi ñu occupé euh, un peu euh, du terrain surtout que ci deux voies yi parce que luñ gën a occupé ci deux voies rek mën nañoo dugg à tout moment ci biir kër yi raw ci biir euh, dëkk bi muy Touba comme niñ ko defee dañoo wër biir dëkk bii di Touba mais. pour euh, défendre li nga xamné ne situation bi deug deug fi ñu taxawee xam naa peut être moy euh, jamono bi mais mais en tout cas c'est compliqué yow euh, ma ma Fall c'est compliqué jamono bi hmm. wa non la situation bi voilà. situation c'est compliqué. Hmm. ndax sax so xolé so xolé li nga xamanté ni rek dembu ñu tolok 50 personne lañ jotta tek loxo fi la si diggante Touba ak Mbacké. so xoolee tey ñu ñëw nekk fii si Verton point so xolé dembu amna ay station yo xamanté ni jot nañu ko attaal fii si Touba même sax tey jii soo xoolee am nañu loxo si ngoon gi loolu nak day war na ne nekk na daal benn situation boo xamante c'est un peu compliqué fii nga fi la nekk si Touba rawatina entrée bi diggante Touba ak Mbacké di rek ay ay ndaw yi nga xamante ni ñoom leen jot teg loxo fii nii si jaamoro yi nga xamante si ba léegi diggante 16 heures tey jii si àjjuma gi moom mooy dox diggante askan wi ak ñi leen di uh, way takk voilà maam maam Fallou euh, gis nga ko force de l'ordre yi jamono jii ñoom ñu ngi taxaw ci station euh, Total bi ñu ngi informé sax que ni situation station Shell bi jamono ji dañu ko saccagé mooy station bi nga xam ne jamono booy dugg Touba surtout bi jàkkaarloo ci tali bi jëm euh, voilà tali bi donc.